tey muy juróomeelu dars bi baay nag ginnaaw ba mu nettalee waxu ibn arabi alxaatimi radiallahu anhu ak waxu imaamu shaaraani mi ngi ñëw di wax waxu boppam mu ne qultu wax naa ni wa kawnu hada alaalam almubarriz ولا المبرز يأتي بخاتم الولاية أدل دليل على أن الأمة مجمعة على وجوده بايني وكون هذا العالم نك جينا عالم به المبرز بفعل manam jamono ji ñuy dund yaati dinañu indil bi xaatimil wilaya ci ki kaste wilaya adallu dalilin loolu mooy gën ji tegtal ala anna al umma al muhammadiya ne ummak yonantu bi salallahu alayhi wa sallama mujmaatun dañu aji dëppoo lañu ala wujudihi ci amak xaatimul wilaya wa mimma yadullu ala anna al xatmiya lam takun qabla cheikhina tijan radiallahu anhu bàyyi mu ne nag liy tegtale ne xatmiya amutoon lu jiitu suñu sëriñ cheikh ahmada tijan radiallahu anhu qaala cheikh sidi muxtaar alkunti mu ne cheikh sidi muxtaar alkunti wax na ni inna alxatma fi lqarni thani achara xatmu bi mi ngi feeñee ci fukkeelu xarn bi ak ñaar te xam nga ni cheikh tidiane ci xarn boobu la dund ndax moom mi ngi juddu atum junni ak téeméer ak juróom fukk loolu mooy xarnu assaaniya achara wa nasu kalaamihi mu ne yàqu waxam ji nag kama fi taraifi wa talaid comme nim ñëwee ci téeréem bi tudd taraif ak talaid mujiban lilladi sa'alahu di tontu ki nga xam ne moo ko laajoon an ruya ra'aha ci gént gum gisoon wa saahibu ruya mu ne boroom ruya boobu boroom gént googu موي الصالح ابن محمد الشيخ السوقي ولا السوقي دخل الحمد لله ما سنت الله الذي جعل صدور أوليائه معادن لحل رموز ما أشكل من الحكم والأحكام ما سنت الله من قمنا دفن دن غور يالله ينوي مبل غو dañ ciy sukkandiku ngir fecci li fasu woon ci ay xeetu xam-xam yu am njëriñ ak yi atte wa sayyarahum muhayyiina li wurudil kushufaat yàlla def leen ñoo xam ne dañ leen a tàggat ngir rotub yi nga xam ne lañuy ñuy tuddee kushufaat mooy yi ñuy wuññil jaam wa badaa'iil ilham ak yu tumuranke yi nga xam ne moom la yàlla di yenkawal ay waliyu wasalaatu wasalaamu ala bashiril anam yal na yàlla julli te sëlmal ci ki nga xam ne mooy bégal jaami wa ala alihi ak ci njabootam gi wa ashaabihi ak i saxaabaam masaabixu dalaam ñoom ñi nga xam ne ñooy làmp bi ñuy niital li lëndamoon سؤالك أيها السائل سرين بناء موي سيخ سيري مختار الكنتين سألات بي يو أجلات بي أجلات بي موي الشيخ صالح ابن محمد ابن محمد الشيخ السوقي أيها السائل الهمام يو لاج كدين خمني سنغنغ عن تأويل قوله عليه الصلاة والسلام يو مي تأويل وهو ينطبي عليه الصلاة والسلام فيما رأيت fi ghiyabaatin manaam ci li nga gis ci sak fàddute ci nelaw araaytakum laylatukum haadihi fa inna ala ra'si kulli mi'ati sana minha la yabqa mimman huwa ala dhahri al-ardi ahadun فتأويله والله أعلم أن هذا القرن الذي نحن فيه يشاكل قرنه عليه الصلاة والسلام من وجوه mu ne araaytakum ndax du ngeen ma solo wala ndax gisu leen laylatukum haadihi seen guddi gi ndax boppu téeméeri at yu ne fa inna ala rasi kulli sana dina aju ci boppi téeméeru at bu ne min ha laa yabqa mimman huwa ala ard maanaam dina aju ci quddi ci ki nga xam ne mooy borom xatmiyatu laa yabqa du des mimman huwa ala zahri ahadun ci kenn koo xam ne yaa ngi nekk ci kaw suuf lu duhut ni moom moo la kaste sëriñ bi ne taawilu loolu yàlla rekk xam moy xarnu bii ñuy dundu dafay nekk xarnu boo xam ne maanaam siècle boo xam ne dafay def musaakala maanaam dafay tombek xarnu xarnoom moom alayhi salatu wassalam dafay ndiru xarnu yonontu bi sallallahu alayhi wa sallama min wujuhin ci anam ahaduha anam gu njëkk gi anna fi xaatimul awliya xarnu assaani asara ci la xaatimul awliya di كما أن في قرنه خاتم الأنبياء كم نيغا خمني قرنك ينونت بي تي خاتم الأنبياء فيني الثاني نيارل بي موي أن أتباع هذا الولي المجدد الخاتم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر طب مولي بيغا خمني مجدد لكو ne mujaddid لا خاتم yeesal diine la xaatim لا ñoom moom toppam ñoom dañuy woote jëmale ci mbaax di digle lu baax di tere lu bon kama anna ashaaba dalika annabiyi alxaatimi almaahi yamuruuna bilmaarufi wa yanhawna an ilmunkar wa al umama addalla comme ni nga xamee ni sahaaba bi salallahu alayhi wa nga xam ne moom mooy xaatimul anbiya ki nga xam ne moo far sax ay sahabaam dañ daan digle lu baax di tere lu bon te boole ko gëm yàlla te kennal ko tey jihaad ci yoonu yàlla di dal ci kaw ñi nga xam ne ñooy xeet yu sànku yi كما أن هؤلاء يجاهدون النفس والهوى والشيطان الجهاد الأكبر كم نيغا خميني طالب خاتم الأولياء نيوم داني جهاد أك سن بكان خيخ أك سن بكان سن بانيخ بكان خيخ أك شيطاني ta lol la yonentou bi sallallahu alayhi wasallam wax ni lol moy jihad gu maggi ala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yonentou bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni rajana min al jihad al asghar ila al jihad al akbar delu si nañ joge ci jihad gu ndaw gi wara jëm ci jihad gu mag قالوا وما الجهاد الأكبر صحابي لاج كو يومي الله يوني لان موي جهاد بو ماغي قال جهاد النفس من والهوى wal hawa xeex ak الثالث نتل أنم جموي الإشارة إلى أن هذا القرن أفضل من جميع ما تقدمه من القرون السابقة سوى القرون الثلاثة من جنج بمي جنجنة قرن بسيكل بشهت جان دندو مو جنتي سيكل يكو جيتوون يب بمدس نتي سيكل موي siècle yonontu siècle sahaaba yi siècle taabiina yi te loolu xadis moo li li wurudi nafsi bi afdaliyatiha ndax rotub text ci ngëneelu ñetti qarnu yoy qala sallallahu alayhi wa sallama yonontu bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni khairul qurun qarni mas gën ci ci ci mas yi moy mas gi ma dundu summa alladhina yalunahum top ñi ci top summa alladhina yalunahum topp ñu ci topp maanaam yalunahum bu njëkk bi allazina yalunahum bu njëkk gi mooy saxaaba bi ci topp moom mooy taabiina yi mu ne fassara dalika bi qawlihi sallallahu alayhi wa mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama na loolu ci waxam ji xayru ci xeet wi mooy li jiitu ak li mujj maanaam ñi jiitu ak ñi mujj وبين ذلك نهج أعوج diggante way njëkk yi ak way mujj yi am na fa yoon woo xam ne aawaj wu dëng la ma ana minhum wala hum minni ñoom bokkuñ ci man te man bokkuma ci ñoom yuridu awaxira dawla al umawiya mu ne lim ci namm mooy jeexitalu dawla al umawiya wal abbasiya ak dawla al abbasiya wa dawla al qaramita أك أتاو قرامتا وبني عبيد أك بني عبيد وتغلب التتار وتغلب دين النوت التتار تتاري يعني يومي تميت لما ظهر تي لفين وانتشر تتسارو في تلك القرون تي يويل سيكل من أنواع الزندقة تي خيتو نك أي زندق والرفض أك نك أي رافضية والاعتزال نك أي معتزلة وسفك الدماء ak tuuri deret wal maasi ak mooy yàlla gu bëri wal xumuur naan sàngara mi wal jahala ak réer gi wa duhuril fujur feeñ ak kàccoor mi ma sakana ci li nga xam ne sax na fa wadd ma xalla aktaruhu fi hadihi al qurun te loolu nag li ci ëpp effacé wu na ci yile xarnu maanaam ci xarnu xaatimu nubuwa walillahi alhamdu wal minna yàlla daal mooy xeyoo sant يلا موي بروم خيولي تامت موي سنت موي لله الحمد المنا ما يب موم لا نيل تامت سي لوخوم لا ني من والخاتم رضي الله عنه مات كما في الطرائف والتلايت ابن عربي الحاتمي رضي الله عنه مي جينا ادنا كوم نيم نيوي سي طرائف تيري لا بو خامني سيد مختار موكو تاليفون سنه ستمائة ولا سنة ثمان وثلاثين وستمائة أتم جروم بني تيمير ak fanweer ak juróom-ñett hijriyatun muhammadiya ci atub gàddaay yi nga xam ne mooy gàddaay ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam kama fil yawaqit comme nim ñëwee ci yawaqit bu imaamu shaarani al yawaqit wal jawahir wa mo baane wa mawlidu cheikh seydi muxtaar al kunti جدك شيخ سيد مختار الكنتي كان سنة اثنتين واربعين ومئة والف من هنا اتم جني اك تيمير اك نين فكك نيار وتوفي سنة عش... آه، ستة وعشرين ومئتين والف من جن ادنا اتم جني اك نياري تيمير اك آه، نيار فكك جرام بن ومولد الختمي جدك ختم بنك من هنا سنة xamsiina wa mia wa alf atum junni ak téeméer ak juróom fukk wa tuwuffiya salaasiina wa miatayni mi ngi génn atum junni ak ñaari téeméer ak fanweer fa tabayyana mu leer annahuma mutaasiraan ne Cheikh Sidi Muxtaar al Kunti ak Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu anhu ñu bokk jamono lañ fafham nawwara allahu basiratana wa basirat bàyyi nee loolu yal na yàlla leeral suñu gis-gis te leeral seeni gis-gis mu ne qultu wax naa ni وقد ظهر مصداق ما قال الشيخ سيد مختار الكنتي في أصحاب الختم من كونهم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف من فين نفين كبير li dëggal li Cheikh Sidi Muxtaaru Kunti wax ci taalibey xatmu bi ne dañuy nekk ñoo xam ne dañuy woote jëmale ci lu baax di digle lu baax فقد قاموا في هذه الصفات قياما لم يقمه غيرهم باين طالب الشيخ تجاني تخاو نان ملو موي يوب نيت تي مباخ ديغل لين لو باخ تير لين لو فون تخاو نان تخاواي بو خامني كين موسوكو تخاو كودور نيوم حتى ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصب مدارس العلم وتعمير المساجد لله لا ترى في هذه البلاد الا في اصحاب الختم bàyyi ne dem nañ sax ba digle lu baax tere lu bon tabax ay daara yu ñuy jàngee xam-xam dundal néegu yàlla yi doo ko gis ci gox goxaan yi lu duut ñi ci taalibe xatmu bi kon nag fanzur bi aynil insaaf na xool ci bëtëg màndute fa shamsu samsun wa in lam yubsirha darir jant moom jant rek lay doon doonte ka aji gumba gi mënu koo gis والعسل عسل وإن لم يجد طعمه الممرور لم مم لم رك لي صف دون تك كيغا خامن دا فا تاوات مون وفي كتاب الجامع ردنا في كتاب الجامع للعلامة العارف بالله مولى الجامع آه، لما افترق من درر ومن درر من الدرر الفائد من بحار القطب المكتوم muy téere Seyd Muhammadul Misri radiallahu anhu mu ne rot na fa maanasuhu li nga xam ne lii mooy yaxam faslun lii buntu la fi taarif bi nasabi cheikhina radiallahu anhu ci xamle askanu Seydina Cheikh radiallahu anhu wa wasilatina ki nga xam ne mooy suñu jokkuwaay qutbul aqtaab di qutbuk qutbu yi aalamu tariqati muy drapeau wu tariqa bi mandargay tariqa bi wa shariati wa bahri shariati di géej ak sharia wal xaqiqa ak kooku mooy ki méngug ñun ñu di ko dàkkantele abil abbas jëlee ko ci maamam abbas waaye abul abbas beneen martaba bala sax ci xaqiqa muy ahmad ibnu maulana muhammad di doom ci suñu sang bii di mahmad mi nga xam ne ñu ngi koy dàkkantelee ibnu omar muy doom ci muxtaar muy doom ci ahmad muy doom ci muhammad muy doom ci salaam muy doom ci abil salim bokk muy doom ci abil aid muy doom muhammad ibn salaam muy doom ci abil aid muy doom ci salim salim di doom ci ahmad mi ñuy dàkkantele al alawaani muy doom ci ahmad muy doom ci ali muy doom ci abdullah di doom ci abbas di doom ci abdul jabbar di doom ci ibris idris bokk maa ngi jégalu di idris moomu yi tamit di doom ci idris idris mu ñaareel bi doom ci ishaq ishaq di doom ci زين العابدين زين العابدين دي دوم تي احمد احمد دي دوم تي محمد محمد دي دوم تي عبد الله الكامل عبد الله الكامل دي دوم تي الحسن المسنى الحسن المسنى دي دوم تي الحسن السبت مي دوم تي سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه فهذا نسبه الموجود في العقود من لي موي اسكنام جيغا خامني موم لاني فك تي رانغ يا مانام تي شين ييغا خامني بوروم خام خامي تيالا لا ييغا خامني بوروم خام خامي ديفال نانكو اسكنو شيخ تيجان ولكن لم يعول عليه الشيخ رضي الله عنه من واي شيخ تجان رضي الله عنه موم جبلوتون لولو فإن كان محققا عند آبائي دون تك أسكن وودو دغلو تي أي بايام حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم بكرك ملاجن النبي صلى الله عليه وسلم عن نسبه تي أسكنم وحققه له مدقل الكوكو قال المؤلف أه مؤلف بي nga xamne moy talif kat bi sayyid muhammad al-misri radiyallahu anhu wax سمعته يقول رضي الله عنه دقنا مولانا الشيخ تجان رضي الله عنه وحني سألت سيد الوجود عن نسبي لجنا سيد الوجود ينتبه صلى الله عليه وسلم سما أسكن هل أنا شريف أم لا نحمن شريف لا ولا دير فأجاب ينتبه صلى الله عليه وسلم التون نكو أنت ولدي waladi yow yaay sama doom mu répété ko ñetti yoon أنت ولدي waladi xaqan anta waladi anta waladi fa min سمع تحقيق نصبه من بام دغ دغ دغل بي يونت صلى الله عليه وسلم دغل اسكنا من مام شيخ تيجان من سيد الوجود متوكي سيد الوجود صلى الله عليه وسلم صريح صراحة بالصرف كي لا سوغا ليرال ني موم شريف لا وجزم به دات شي دوغو وذلك لتحقيق نصبه في نفس الامر لول dafa aju ci deugal askanam ci même mbir mi li anna nabiya sallallahu li anna sayd al wujudi sallallahu alayhi wasallam ndax sayd al sallallahu alayhi wasallam akhbarahu yaqadatan la manaman moo ko wax ci yaqada ci yeewu go xamne du nelaw wa akhbarahu bi umurin kathira mu wax wax ko ay mbir yu bari zahiratin wa batina yu feñ ak yu nabbu sayati yati insha allah bàyyi ne loolu ñëw ci kanam ذكرها اكتدوم لك نهلا في أثناء المجموع ci dajale bii ñuy dajale qaala al-allaama al-arwa zuburul jamd mu ne boroom xam-xam bu yeew bii ñuy wax zuburul jamd zuburu jamd wax na ni walam ara man taana fi nasabi musuma gis ku jam askanu kii Cheikh Tidiane radiallahu anhu musuma gis كجم أسكن الشيخ تجاني رضي الله عنه وقال الولي الشهير والعالم النحرير والقدوة الكبير سيدي محمد من ولي بثيو بي برم قم قم بو لير بي روي بي سيد محمد قال وحنا قال محمد بن أحمد العاقل محمد بن عبد أحمد العاقل وحنا في نظمه لآل البيت ci nose gi nga xam ne nose na ko waa kër yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ci woy mu ne wa ma min al aqtaabi aydan yantami ila zura bayti nabiyi ne wa ma min al aqtaabi ak ñi nga xam ne ñi ngi bokk ci xutbu yi aydan ba tey yantami ñu bokk ila zura bayti nabiyi ci واذكر يونون تبي صلى الله عليه وسلم على أكرم نيغا خبنا ويتدلن فبالإمام العارف الرباني بقنا في إمام بقام يالا ذي المجد كيغا خبنا بروم تدنغا عبد القادر الجيلي موسى عبد القادر الجيلي مومتي لبوك وبالدوسوقي أك الإمام الدوسوقي الطويل الباعي كي خبنا كو لخلا والبدوي أك إمام أحمد البدوي وأحمد الرفاعي أك إمام أحمد الرفاعي والشاذلي أك شاذلي Imam Abul Hasan al-Sazali والشاذلي الشاذلي سيدي أبي الحسن sama sang bii di Abil Hasan zustiiti fi l-aafaaq moom mi nga xam ne ku ñu dégg la ci gox-goxaan yi wa zikri l-Hasan yi ak maanaam ñu koy déggee ci tuddinu rafet wa bil imaami gurrati al-a'laami ak ci ilimaan bii nga xam ne mooy gurra til a'laami way weexi borom xam-xam yi maanaam star la ci biir boroom xam-xam yi abdusalaam ibni machis issaami abdusalaam mi nga xam ne mooy doom machis ki nga xam ne aji yëkkatiku la wabil jazwali ak imaamul jazwali mi nga xam ne mooy boroom dalailul xayrat al azimi shaani ki nga xam ne aji màgg ci mbir la wabi sharif il majidi tijaani ak sharif bi nga xam ne ku tedd la muy kojak tijaani yotu kooku mooy cheikh ahmada tijaani radiallahu anhu وسيدي عبد العزيز الفاسي أكسيدي عبد العزيز الفاسي يعرف بالدباغ نمكو جنا خمي الدباغ برم إبريز عند الناس جنيني وأحمد المعروف بالتيجاني أحمد مي قمنا نمكو قمي تيجان زل زل علمي برم قم قم بي والأسرار أكبوتي والعرفاني أكبي الله خول لمرانجل شعتيجان رضي الله عنه خول لمكرانجل أحمد من قمي ديان زي العلم برام قم قم بي والأسار أكمبوتي والعرفان أكيت قمي الله وقال صاحب الجامع برام جامع وحنا موسى محمد المسيب على كلام جنا وهم قد ما نصه لي خم لمويا من ولد بعين مالي شاتجان رضي الله عنه يجد عين مالي سنة خمسين بعد المئة والألف أتم تيمير أتم جنيا تيمير جرون فكو ونشأ بين أبوين أبويه الطاهرين صوصوتي ديغنتي نياري وي جورم يو سيل يوي يو تي يوي ييغا خامني ني لاب لاج الى ان بلغ التمييز بام مات اك راني فاسلماه للمكتب ني دادي كوي جيبل دارجا فقرا القران مجانغ القران وهو صغير فك ميغي نيك خالد وتعلم العلم الظاهر مجان خم خم ظاهر وكان حافظا نكون أجي مكل جي القرآن ماهرا كيهو فطنا كموس كيسا كموس أديبا بتي كيهو بوخم ججيخ إلى آخر كلامي ثم قال توك موهني فقد قرأ القرآن على سيدي محمد بن حمد تجاني حفظه الله شيخ تيجاني رضي الله عنه جانجي القرآن في لخك سرينيم بوب سيد محمد ابن حمو التجاني الله كي الله واتو qabla al bulugh lu jiitu muy majeur wa naxwahu fi ljawahir bàyyi ne lu mel nii la borom jawahir wax wa zaada mu yokk si moom borom jawahir ne wa xafida alqur'ana xifdan jayidan fi sab'ati awaam mu mokkal alqur'an mokkal bu jéggi dayoo ci juróom-ñaari at maanaam ba muy am juróom-ñaari at ala ma axbarani bihi an nafsi mu ne loolu nag moom Mawlana Cheikh Tidiane ci boppam moo ma ko nettali القرآن دي ممكن مكلة من رواية ورش النافع تي رواية ورش بن جريج نافع إلى آخر كلامي وقال في الجامع وحنا في جامع لأن هذا السيد لخصنق بي كان رجلا صالحا نتكو بعلون مؤدبا مؤدبا للصبيان معناها سيد محمد بن حمو كدان ير أي خلالة وقرأ على شيخه بو عكاز مومي جانجي تسرين بو عكاز وكان رجلا آه، صالحا نتكو باحلون مشهورا بالولاية في قريته كسيون ولاية لجي دكم كان مؤدبا للسبيان ددان يرأي خلي ذكر لهم مرة تدلن لن بنيون أنه رأى رب العزة في النوم جسنا يالا جنة لهم وسرد عليه القرآن برواية ورس مو أنا ممو جنغ القرآن ci kanam borom bi tabaraka wa taala ci riwaaya wars min awwalihi ila axirihi ci njëlbeen nga ba ca mujj ba fa qaala lahu rabbuhu hakada unzil mu ne ba mu ko jàngee ci riwaaya wars yàlla ne ko nii lañ ko wàccee wa xasala ala yadayhi nafa maanaam Cheikh Tidiane jëriñ wala boog jëri wa xasala jotee na ala yadayhi ci ay loxoom an nafa njëriñ wa maata sayid Muhammad ibn Hamu al mazkur aama isnayn wa sittina Seyd Mouhamed ibn Hamou moom ñu doon tudd mi ngi génn àdduna atum junni ak téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaar wa qara ala cheikhihi Seyd al Mabrouk mu jàngee moom Mawlana Cheikh Tidiane ci sëriñ sëriñam bii ñuy wax e, Ibn Abi Aafiya Tijaani mu jàngee ci moom Muxtasar Khalil jàngee ci moom Risala jàngee ci moom Muqaddimat Ibn Rushd jàngee ci moom itamit Eh, téere bi nga xam ne moom mooy al axdari wa tuwfiya mi génn àdduna moom sëriñam boobu atum junni eh, sanata siptatin wa siptina wa miatin wa alf atum junni ak téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn mu ne wali cheikhina radiallahu anhu ruya fi awali umrihi tadullu ala maqaamihi cheikhna cheikh radiallahu anhu amoon na gént gum gisoon ci njëlbeenu mbiram koy tegtal maqaamaam min ha bokk na ci ay génta yu bari la sax bokk na ci gént yooyu qaala wax na ni ra'aytu wa ana saghirun qabla albuluug ka annahu intasaba li kursiyu almamlaka wa ana jalisun alay gis naa ba may xaleel boobu maseere guma sax mu mel ni dañ ma tegal seize buur ma toog ci wali asakiratun kasira ma am mbooloo mu bëri moo xam ne ñoo ma wër wa ana usarrifuha fi qadaai alxawaaiji ka anni malik mbooloo moomu nag may soppandiku ci ñoom ci faj samay haajo mu mel ni ki buur la wa qaala lii wa qaala raaytu ba tey mu ne wax na ma ni gis naa haada loolu wa maanaam gént googu maa ngi koy gis misri mooy nettali wa ana fi ayni maadi boobu maa ngi ci ayni maadi ثم حين كان في التلمسان من بمنك التلمسان نك قال وحنني رأيت نفسي في صفة ملك جس ناسا مبوب تشملو بور وعقد للناس البيعة ني نيب نيو دي جان تكمن ومعي خلق كثير ما عندك مولو مبري ونصبوا لي كرسي الخلافة نيو تجل ما سيز خلافة جالا على سطح مرتفع تبين باك بو كره وفوقي لباس الملوك ما نجي سول كاي بور من Eh, malakin wa gayrihi ci maanaam yére buur laa sol min malakin ci nguur wa gayrihi ak leneen lu dul moom fa lamma xaanati sola ba julli jotee wa hiya waqtu zuhri tabis julli tàkkusaan la baadartu an amura ahadan min annaas yusalli bina gaawantu naa digal kenn ci mbooloo mu jiita ñu ala aadati fi lyaqaza comme ni ma koy defee ci sama yeewte fakkartu ma xalaat wa qultu ma ne الخليفة هو الذي يصلي بالناس خليفة مورا جيتا نيني فتقدمت مجيت وصليت بالناس مجيتا نيني جلي حتى أتممت الصلاة وما متى الجلي وسلمت مسلمل فلما قصها علي شيخ محمد المصري بمنت بام نت بما شيخ تجان نتلي جنت بي قال لي وحنني وحنمني وأظن أن الله سبحانه وتعالى أراد بي القربانية dama njortu ni sama borom dafa bëgg ci man nam ci man qurbaniya wa ana atlubu ghayraha taman limay sakku ëpp na qudbaniya قال فقال له سيد محمد المصري سيد محمد المصري وقو على سبيل المزاح تي وقين وو خامني وقين ضرك حيث ارادك لهذه المرتبه العظيم نكو لورنا لا دي بام مرتبه بكاي فضحك رضي الله عنه مولانا الشيخ رضي الله عنه دادي ثم بعد مدة صرف وجهه لطلب القدفان جنا أبدير نك مدادي جم جسا كلين خمني مموي قدفانيتو كن مني واو قال الشيخنا وسيلة الناس سنو سرين جوكواي إلى ربنا سنبرم حسان الطريق سيد محمد بن سيد عبد الله العلوي وحنا تي تيرم بيم تودي نزهة المستمع والحافظ مناقب الشيخ محمد الحافظ ما نصه لي خامني لي موي مما يدلك على سعة علمه وحفظه وفهمه من اللي لا يتكتل يا تواي خم خم شيخ تجان اك من موكلم اك ديغم انه قدم على فاس بوم نيوي فاس كما اخبرني كم نيم مكو نتالي شيخنا سن سرين وفيه ما فيه من علماء الظاهر فكفاس نفنك كون تي بروم خم خمو الظاهر جيجي نان دايو فابغدو ني داري كوي باج غير خم خمام وحس وحسدو ني داري كوي اينياني اشد البغض كن جاتري مبانيل والحسد اكنيان وانكروا عليه ني كونتركو وما هذا عندك لول لا يقدر احد منهم ان يتجاهر ala annahu yunkiru alayhi mushafahatan amul kenn ci ñooñu nga xam ne dañ ko bañoon iñaanee ko ku mën a taxaw wax ci kaw mbañeel googu nga xam ne moom la ko bañ aw ci tuñam aw yu kaatibahu wala mu bind ko murasalatan ci lettre lima yaalamuuna fii ndax liñ xam ci moom wa huwa yaruddu alayhim wa yuxaalifuhum moom mi ngi leen doon delloo ay masala maanaam di leen tontu ba pare di wuuteeg ñoom ci ay masala حتى أنه يوما بحضرة مولاي سليمان بصح أمن بين بس جي مولاي سليمان وسيد الطيب نكيران سيد الطيب نكيران بي فك سيد الطيب نكيران بيده كتاب من غير بين تيري بو يقرأ فيه التفسير سيد الطيب نكيران مولون بروم كم كم بو مكبتي جمانو جوج فرد عليه الشيخ فقال له سيد الطيب سيد الطيب جان بوم دجي سرين بدي تفسير مو أملم كو غاغانتي سرين بنكو هذا الذي قال صاحب الكتاب لما وحني لبرم تيري بوح قال له الشيخ إنما أرده عليه شخص جان نكو برم تيري بلما وحنون دمكو كوي ديلو وقال لي شيخنا شيخ محمد المصري نانو سرين شخص جان وحنا مني ولا شيخ محمد الح... كي نمتدو شيخ محمد ابن سيد عبد الله العلوي mu ne wa min ajibi amrihi bokk na ci li gën a yéeme ci ay mbiram anni hadartu imlaati li kitab jawahir maani man teewee naa ba muy dicté Seydi Ali Harazim jawahir maani maanaam imlaat kitab jawahir maani ala tilmisi ci taalibem ba alhaaji Ali Harazim alladi kaana Ali Harazim moom nga xam ne nekkoon na koo xam ne maarufan bi surati alxatti xamee woon nañ ko gaaw ak bind wa huwa yaktubu muy bind wa cheikhu yum li sëriñ bi di fite من غير مطالعة تلوخم يرد أي تيري مانم ليروت تيري ولا نظر تقول تيري ولا يقف قلم الحاج علي الحرازم تك كايو الحاج علي الحرازم بي سوكي شيخ تجان دي ديكتدو تحومك وكان علماء فاس على حسدهم برم خم خم نيوم كنيان جينا خمني كنياني وننكو له نيالكو ينقلون عنه العلم ننكو إنياني إنياني دندان تخلي كموم خم wa yubhimunahu fil azwi maanaam bu ñuy joxe xam-xam bi ñu nëbb ni ci moom lañ ko jëlee yaquluuna dañuy wax ni wali baadihim kaza am na kenn de ci borom xam-xam yi ko wax nangam kon ñuy taxaw foofu allahuma salli ala sayidina muhammadin ilfatihi lima uliqa walxatimi lima sabaq nasir ilhaq bilhaq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين